حمدي وشكري لمن كلي به سارب له ردا دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارب له ردا دون صوت هند سرسارا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, tey jii nag noo ngi fii ci Sarsara euh, ci suuf su sell si macha allah euh, ni ma leen ko doon waxee nga xam ni diirub altine ba nu jógee ba léegi mboolem fun fi jaar moo xam ba ñu déparé ca Croix Rouge la ba nañu demee Ngunjaan waaye ba nañu ñëwee Ndar mbooleem ziar yi nga xam ne am na fi ak réaction yu am solo yi nga xam ne euh, mbokki taalibe yi doon nañ ko wane waaye ba ci Rosso Sénégal muy daayira Nuuru Daarayni ba ci rosa Mauritanie ba niñ agsee ci kër Seexul Xaddim gi loolu lépp mbokk yi ak entretien yu am solo yéen a ngi doon am waaye nu leen doon dig ni leen danañ leen demal fa fële nga xam ni mooy dëgg-dëgg barab ba nga xam ni sëriñ bi fa la saxoon muy Sarsara waaye fa la jëloon wérdul Maquus waaye fa la bind woon xasida yu bare bare waaye fii nag fi la waxe woon inna lazina ilaa sarsaara xat xasadu siyaarati faaraku daarin aw saara mbokk yi noo ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi seetaan télévision As-Samadiyya ak télévision al sunu borom defal la ak njéggal ni nga xam ne diggee ko képp ku fi ñëw koo xam ne aman na yéene te yàlla dogal mi nga nuy seetaan ñaan googu yàlla na ci duggaale ci barkeb Seexul Xadim waaye mbokk yi ñu ngi ci jaare ci barab bu tedd bii di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool waaye di ñaanal nag sunu jàmbaar ji sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Chouaïbou borom initiative bu am solo bii sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko àggale ay mébétam ci lislaam mbokk yi ni ma leen ko waxee nag noo ngi fii Sarsara bu ngeen xoolee gis ngeen ngelaw li metti na lool waaye mbokki taalibe yi faale wuñ ko fenn fu ne ña nga fa teg ay xayma gis ngeen ko noonu oto yet fenn fu ne ña nga fa ne wax naa ko léegi euh, fii ci aspect économie da ngay gis ne li fi ñëw ci ay pick mat na téeméeri pick-up wala mu ëpp ko te benn bu ci nekk dinañ ci fay cent vingt cinq mille mbokk yi xoolal loolu kon nit ñi Serigne Touba jaral na leen xalaatuñu coono bi xalaatuñu ngelaw li xalaatuñu tëdd ci suuf kenn ku nekk la nga gën a baax le da koy indi yére ba nga gën a rafetle da nga koy indi ngir mel ni koo xam ni da ngay janoog Serigne Touba ndax boo ko gisul jàpp nga ne moo moo nga lay gis kon mbokk yi. fas yéene nañ incha allahu taala bu ci kanamee danañ ànd ak yéen lépp loo xam ne mooy programme bu am solo bi nga xam ne war na fee am ndax maa ngi fàttali ni euh, kuréelu Sarsara yaatal liggéeyal Seexul Xadim mbooloo mi ñu àndal dañu jógee nag ci dal bi niñ ko doon defee nga xam ne fii ay ñetti barab la maanaam sëñ Tuubaa dafa amoon kër fii ci xur wi waaye daan fi jóge di dem ca teen ya abaar ya mooy abaara mukkaramatan boobu ngay dégg mu ne ko wax jàpp fa ba sell waaye ñëw ci jaamukaay yàlla bi muy jàkka ji ngeen di gis kon Serigne Touba sunu borom fay na ko bi mu fiy nekk booba defoon naa ne lu mel nii amul woon waaye tey gis na ko waaye li ci gën a yéeme mooy da gis ni xoolal fa mu doon jóge ca kër ga ak fa doon jàppe ji ak fi nga xamante ne fi lay jaamoo si yàlla waaye léeg-léeg it aman na bayitu boo xamante ni fa la daan wéetale yàlla foofa nag fa la jotee li ñu wax wérdul maxuus bi waasitata rasulullah sallallahu alayhi wa kon mbokk yi dina ànd ak yéen ndax ni ma ko waxee kuréelu Serigne Touba yaatal liggéeyal Serigne Touba ba Bassirou Amar jiite ko dañuy àndandoo nag mbokk yi mel ni koy armal di wax benn baat inna lazina ila sarsara xat xasadu siyaarati faaraxu daarayni aw soxna yëpp sol lu weex ñu ànd armal di war di wër barab yi nga xam ne moom la Serigne Touba doon euh, doon wër loola waral nag ma taxaw ak ci mbooloo mi nga xam ni macha allah ay jàmbaar lañu euh, Serigne Bassirou naka jekk bi ñu tàmbalee ba tey point de départ yi yaa ngi ko doon wax waaye tey fan lañ toll maanaam fi ne nii nga xam ne ñu ngi ci yor-yor gi jant bi génn na dox na doxub góor tuuti macha allah kon naka lañ war a def ban programme moo nekk sunu kanam ginnaaw boo xam ne ñëw nañ fii ci am Abdou na di Sarsara alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallim taslima sëriñ Kosso Seye ñu ngi lay nuyu di la fay nuyu di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi téwér di ko ñaanal mboolem kilifa yëpp li ñu taxoon a jóg maanaam li nekkoon suñu objectif li taxoon daaw ba bi ñu jógee fii ñuy coordonné di soññee di laaral di dem di dikk mooy teew ci barab bi yàlla nag may nañu ci mbaaxam ak kattanam ba ñu teew fii ci suba aljuma 2024 le 25 le 26 euh, avril fii ci Sarsara war a passé édition 2024 muy 22e édition wax dëgg yàlla ziar bi tamit gis nañ ci ak yokkute bu baax a baax baax a baax ci wàll yëpp aspect boo jël rek ci ziar bi gis nañ ni am na am na évolution bu baax ci bu ci am kon sant nañu yàlla ndax fii mooy barab bi nga xam ni fi la sëñ Tuubaa jotee alwér bi maaxuus muy sar sa daan dem euh, ci barab ba dëgg-dëgg waaye jàkk ji di jullikaay mi nga xam fi la daan jullee kër gi nga xam ne ci la nekkoon daan ci dalal sorofaawi te fii moom kër moom xayma rek lay doon muy barab bu symbolique ci yoonu murit waaye barab bu am wàccuwaay ci jaar-jaar yi sëñ Tuubaa ndax li mu fi wax mosu ko wax fenn ak donte fépp fu mu nekk am na wàccuwaay boobu waaye nag xusuusiyee bi moom fii rek la précision bi la ko defee muy ku fi ñëw tàqali ko bàkkaar àddina ak toloo loolu suñu Abdoulaye waxoon na ni du du xaas waaye am la kon ñi ngi sant ñëpp di sant yàlla am nañu mbégte xol bu baax ci li ñu bëggoon muy teew Sarsara yàlla maytuñu ko ci mbaaxam ak kàttanam kon dañ ci sant suñu borom subhanahu wa taala jërë ngeen jëf mbokk yi noonu ma leen ko junjee gis ngeen soxna yi ñu ngi noonu macha allah gis ngeen ni ñu déguisé woo macha allah mu am solo lool ñoom ñëpp kenn ku ne ñu ngi mel ni ñuy armal euh, mu am solo lool ñu fas yéene nag jublu euh, ci li nga xam ne mooy ziar bi euh, macha allah yaram maa ngi lay ziar bu baax a baax xam naa dinaa ñëw rek ci yow bëgg nga fàttali ma sa yaay kan fan nga jóge ak ban yëg-yëg nga am ci barab bu tedd bi nga xam ni ñëw nga fi te mu bokk ci barab bi Sëñ yi nga xam ni ku tudd taarixu yoonu murid rek euh, tudd ko muy Sarsara. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi bu baax di siyaar mbokk taalibe yëpp ak mbokk jullit yëpp ah tur ngi nekk Djily njaay maa ngi nekk taalibe Serigne Touba ginnaaw bi it nekk ci daar ji ñuy wax ahlu minan bu daara ahlu minan bu Rufisque maa ko jiite ginnaaw yàlla. macha allah waa sëñ Djily euh, ban yëg-yëg ngay yëg boo ñëwee fii nga xam ne mooy Sarsara. sëñ Touba waaw sëñ Touba lañ yëg. te boo yëgee sëñ Tuubaa yëg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga yëg nga suñu borom ndax maxuma la fii fii ba Mauritanie waaye diggante fii ak tali bi rek ak jaar jaar yi nga xam ne nit ñi jaar nañ fi ngir agsi fii ku fi jaar xam ne sëñ Tuubaa yàlla rek ku ñoroon na ko ndax doon jullit ak bokk ci jullit dañoo wute dafa mel ne sëñ Tuubaa moom dafa doonoon ab jullit xàqan bokk ci jullit nag moom boo juddoo rek doon jullit jullit doon nga jullit waaye moom dafa doon dafa doon jullit ba noppi bokk ci te li ko ci boole dëgg dëgg dëgg dëgg boole gi ndax ci ci taarix rek lañ ko wax ci diine mooy li ko lislaam jaral boobu ba tax mu ñëw di sàkku si ngërëmul suñu borom fii ak li lépp lépp natt yi noon nga nga ci waxee ak jaar-jaar yi nga xamante ne def na ko ba ak si fii nga xam ne loolu yëpp ngir bañ a nangul tubaab bi kese moo ko waraloon ngir lan jublu boromam euh, euh, fas yéene say say say say say takk ci boromam ba nga xamante ne nii kenn du xeeb euh, lu jëm ci lislaam te di ko jaare ci moom mu jaayante jaayante bu mag boobu ñu liggéey liggéey bu rëy boobu ñu jéemal ko ba sonn jëlewaat ko fii yóbbu ko foofu kon suñu waaw sëñ Tuubaa mos a noppal sëñ Tuubaa ku sonnoon la waaw sëñ Tuubaa ku sonnoon la te te loolu wax dëgg yàlla lu lu mat a bàyyi xel la li sëñ taxaa di wax naan nañ leen fexe xam sëñ bi jar na ci murit bu nekk mu fexe jéego ci loolu loolu daal moom moom mooy li nga xam ne ku fi ñëw daal moom moom yàlla nga yëg te ci sëñ Tuubaa nga koy jaare waaw loolu kese la te loolu rek moom solo yëg yàlla rek moom solo waaw ah, jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah maa nga ànd ak eh, maam bu ci caméra bi macha allah mu jàmbaare lool ah, gis ngeen ko noonu ak eh, déguisement bu am solo bi nga xam ne moom it sol na ko macha allah lépp rek jëm ci ñu fas yéene leen a wanale ak li nga xam ne mooy ziar bu am solo boobu gis nga eh, sama yaay booy ñu ngi noonu sol seen yu weex macha allah mu am solo lool ni ngeen ko gisee ci image yi ah, tuuti ci kanam danañ ànd ak ñoom ci li nga xam ne mooy ziar bi incha allahu taala kon ma bàyyi leen rek ak sama caméraman su ko defee mu bàyyi leen mu jox leen li nga xam ne mooy mooy ambiance bi ba ci kanam incha allahu taala إن الذين إلى صرصار قد خسدوا زيارتهم فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد خسدوا زيارتهم فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد خسدوا زيارتهم فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا

فارحوا دارين أو زارا إلى الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إلى الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إلى الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فرحوا دارين أو زارا إلى الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فرحوا دارين أو زارا إلى الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أوزارا إلى الذين إلى صرصارا قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أوزارا إلى الذين إلى صرصارا قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أوزارا إلى الذين إلى صرصار قد قصدوهم زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فرحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فرحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصارة قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين إلى صرصارة قد قصدوا زيارتي فارحوا دارين أو زارا إن الذين ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi wóor di ko ñaanal mboolem euh, jullit ñëpp ak mboolem kilifa yëpp ñu ngi sant yàlla ci barab bi ñu teew muy jàkka ji nga xam ne fële Sëñ Tuubaa daan jullee fii ci Sarsara ku wax Sëñ Tuubaa xam am na ak jàkk relation bu am solo ndax li mu ñaan suñu borom wax ne ko waj'al buyuutii kullaha masaajida yaa naafi'an an laa yakuuna sajida nga xam ne kon moom fu mu sa nekk daf na fa jàkka bu ñu xoolee ci tukki Gabon bi sama yomba am na jàkka ju mu fa defoon joo xam ne ay bant yu mu goroon ci àll ba ñu indi ko samp ko def ko jàkka ba histoire sax li mu nettali tubaab yi ñu ko mujj tasaare buddi ko waaye loolu la ko yàlla fayee jàkkam jële wala jumaam jële ca njaareem ak mboolem jumaa yi nga xam ni ñu ngi aju ci eh, waa kër sëriñ bi ñu am ci ndigalu sëriñ bi kon fii ci Saar Saar édition 2024 wax dëgg yàlla set nañ ni mbooloo mi gën naa yokku liggéey bi gën naa jël dimension innovation yi aussi bari na ñu ngi ñaanal Sénégal di ñaanal réew mi ñu ko defee muy yàlla may leen jàmm may ko jullit yëpp eh, xool sedd na te it xel dal na bu baax a baax Sarsara ku xamoon cosaan bi ak ku ñu toll tey da nga xam ne ak yokkute am na bu baax a baax. waaw mu mel ne da nga amoon fi daaw benn xalaat bu am solo boo xam ne waxoon nga ko loolu fuñ ci toll te moo doonoon mboolem kuréel yi nga xam ne ni ñoo nekk ci saytu liggéey bi ñu am ay teere yoo xam ne wala boog. kër yoo xam ne nii dañ koy ku nekk day ànd ak sa mbooloo defar ko ngir dalluwaay bi gën a mucc ana loolu fi ci kilifa yi toll. waaw loolu sax démb si guddi jot naa benn information ma ñu doon mën a benn fondation ci euh, site bi ñu xëj na loolu la ñuy tàmbali waaye daan ci gën a waxtaan ak seen site yi ren it xaar boobu ñu amoon daaw am na beneen bu yees buñ ciy dolli mu wàllu ndox mi am na ñu koo xam ne volonté wu na wax dëgg yàlla pour que ñëw mën def fii benn euh, forage boo xam ne day alimenter ndox mi. ñu di jëfandikoo ndax uh, gannaaw jumaa ji li des bariwul te bëgg nañ fi daara te dund fi pour mu yomb faaw ndox am courant sax xëj moo xëj na moom uh, ndox moo ko gën a priorité kon nag ren xaal boobu ñu amoon daaw bu exposé ko sëriñ bi uh, yaakaar nañ ni balaa yàgg loolu dana dana sotti ndox mi aussi yaakaar nañ ni balaa yàgg am nañ yéene buñ ci amee ndigalu sëriñ bi rek am na partenaire yuñ ci mën a àndal yoo xam ni war ñu fexe ba dëkk bi am ndox ba amee ndox rek dina gën a yombal mbokku taalibe bu bare bare ci ziyaara bi. kon kaddu soññe yi ak mbokku taalibe nga xam ne ñooy ànd ak ñoom ci Xombal link ak Xidma ak ana loo leen di wax. waaw sant bu baax bi ñu àndal mën nañ cee tudd alxadimiya mën nañ cee tudd asamadiya mën nañ cee tudd Xombal link ak Wakana Kane ak ñëpp rek ñoo xam ne ànd ñoom ci liggéey bi ndax fu liggéey bi la àgg rek gannaaw suñu borom. ak ni ko boromam bëggee presse bi joué nañ ci rôle bu am solo kon nag ñoom ñu ngi leen di jaajëfal di fas yéene ànd ak ñoom nag Sarsara bi jot di seen seen liggéey bu ñu jàppaaree Ndakaaru jëli waa Ngoundiane jaar Saint-Louis ba fii agsi nii ñu def liggéey bu mucc ayib kon ñoom am nañu mérite wax dëgg yàlla ci liggéey bu xarañ biñ def ci ci ci ci wàllu yi ñu fas yéene ànd ak ñoom rek ñu gunge ñu ci yeneen ziare yi ñu profité di wax ni ziare bu Mayomba Gabon jàpp nañ ko Euh, mois de juillet incha allah daañu ci coordonné ak ñoom coordonné ci ak ñi nga xam ne ñooy jiite ziar boobu ku mel ni sëñ Cheikh Mbeng ñu mën a àndandoo waa Sarsara dem fekk ji waa Gabon foofu sëñ Tuubaa nekkoon ndax xam nga ren dañuy jógee Sarsara rek événement bi ci gën mag ci yoonu murit te mu nekk événement bi génn mooy mooy mooy Gabon te bu ñu jógee Sarsara rek daanaka ñaari weer ñu waaj dem Mayumba Gabon fa sëñ Tuubaa nekkoon يسر لي الولود jërëjëf sëriñ Abdoulaye boobu nga lu sababu barab bii ñu nag muy teen bii teen yi nag histoire dafa jàngale ni ay teen yu bari la li tax mu nekk ay teen yu bari fi Tuubaa moo ko wax ni lillahi kulli lana abaari makramatin min xal taxal na wa fiha jamma manzara booy tasaare dëgg ak bayit bi nga xam ne Cheikhul Khadim wax na ko muy inna alladina ila sarsara qad qasadu ziyaarati faaruqu daarayn aw zaara fii la ko xew dëgg dëgg précisément fii la ndax nee na teen yi la ko mbooloo bi diggal jàmm mooy mbooloo bu bari ñëw ziyaar si ko mu wax bay boobu teen yi nag buy demee suñu ginnaaw am na ay kàmb yu fi nekkoon yoo xam ni at yu jëkk yi dañu fa daan fekk seen yii Serigne Mar Fall yàlla ko yàlla yërëm moo ma nettali keroog bi ñu découvrir Sarsara dem di ko wax Serigne Saliou Serigne laaj ko ne ko Serigne bi fa daan jëlee ndox ndax ndox ma sori na Serigne Mar na ma ne ko Mbàkke ndox ma soriwul ndax jàppoon na ni ak siyaan na ndax mu ne ko ndox mi soriwul. Serigne Saliou ni teg ba yàgg rek mu ne ko a ah, sa law de yi si ngeen ko toppatoowee dana tegal téeméeri mètre ba ñëwee di ko gas teen bi am nañu 111 mètres pour mën a am ndox. te ko wax jaamu yàlla wax dox ndax dox mooy yiwénal ak jaamu yàlla te Sëñ Tuubaa boole xaqiqa ak sharia jox na sharia lépp bu mat ba tax waxoon ni julli te jàppaloo loolu da ngaa tiim ci tiim doo ci amee loolu jahannama kon jàpp bu waree sangu bu waree islam da ko digle moo tax Sëñ Tuubaa fonkoon ndox ndax naa fonk ak jaamu yàlla kon nag di ci bi rek moo yu xool barab bi xool seen i am ni Sëñ Tuubaa fii da daan ndox mi di soññu ñëpp nag ñu moytu gannaaw kenn la te amul clôture teew ci barab bi rek nañu ñaan ñëpp rek ñu moytu ko amul rupture te bëgguñu kenn nekk ci benn risque sëñ Ablaye kon sa question boobu loolu lañ ci a wax précisément sëñ Tuubaa fii la waxee inna lazina idaa saara xat xasadu ziyaarati faaruqu daarayni aw zaara Sëriñ Saliou ne teg ba mu yàgg rek mu ne ko ah sa lawde yi si ngeen ko toppatoowee dana tegal téeméeri mètre ba ñëwee di ko gas teen bi am na ni cent onze mètres pour mën am ndox te ko wax jaamu yàlla wax ndox ndax ndox mooy yiwénal ak jaamu yàlla te sëñ Tuubaa daa boole xaqiqa ak sharia jox na sharia léppam ba mu mat ba tax mu waxoon ni képp kuy julli te jàppaloo loolu da ngaa tiim ci tiim boobu doo ci amee lul jahannama kon jàpp bu waree sangu bu waree lislaam da ko digle moo tax sëñ Tuubaa fonkoon ndox ndax daa fonk ak jaamu yàlla kon nag li ci ziyaare bi rek moo ñu xool barab bi xool teen xam ni seen Tuubaa fii la daan jëfandikoo ndox mi di ñu ñëpp nag ñu moytu gannaaw teen la te amul collectif teew ci barab bi rek doy na sëkk ñaan ñëpp rek ñu moytu ko amul collectif te bëgguñu kenn nekk ci benn risque sëñ Ablaye kon sa question boobu loolu lañ ci mën a wax précisément sëñ Tuubaa fii la waxee inna ladina ila saar saara xat xasadu ziyaarati yi faaruqu daarini aw sara te boobu ñu wax banu daymaan ñoo ko fi fekkoon doon ko ziyaara ji doon tëbb ci moom doon sàkku leer ci moom don ko ziyaara doon barkeelu ci moom ak mag ñi daan jógee Sénégal ak fu bari ci àllub gànnaar ñëw te ziyaara Sëñ Tuubaa rek tax leen di jog ñoom it Sëñ ak góor la soo xam ni koo ko defalee teraanga mu fay la lu ëpp li mu ko defal ba tax seen pay googu mooy di ko ñu ko dëgmal fekk ko fii sarsaara ziara ko yàlla dina leen jéggal mboolem bàkkaar yu am àddina ak alaxira ñun ak yéen ci édition 2024 sarsaara bu ko defee kon dañuy àggat ndànk ci yeneen barab yi lu mu laaj rek ci leeral ñu leeral ko incha allahu taala abaara mukaramatan bi ngeen dégg Serigne Touba di ko wax ci inna lazina ilaa teen baa ngi nii mbokk yi noonu ngeen ko gisee ci suñuy image macha allah mu am solo kon abana mukuramatan mi ngi nii teen bi ngeen a gis gis ngeen ko mi ngi nii teen bii ci la Serigne doon root bu rootee daal di dem jaamu ji yàlla mi ngi noonu noonu ngeen ko gisee abana mukuramatan mi ngi noonu min xarta xaal naa wa fiiha jamaman saara mu mel ni ci wet geer gis nañ ni amal na ay signal macha allah waaye tey bii nag kon ay siyaan moo fi nekkoon waaye bii nag dégg ngeen noonu ko ba si waxee ci histoire bi ginnaaw buñ ko yeesalee lañ ko fi def nii macha allah mu am solo nga xam ne ku ko gis rek gis nga teen boo xam ne Serigne tubaa daan na ko jëfandikoo muy lu am solo loo xam ne mbokk yi mat na bàyyi xel macha eh, gis ngeen ko noonu mbooloo mi kenn ku nekk di ñëw fas yéene amal say ziyaara ni nga xam ne noonu lañ koy defee ci yeneen barab yi kon incha allah taala noonu lañ koy fas yéene àndee eh, lépp loo xam ne xew-xew la fii ci Sarsara wala muy barab boo xam ne barabu ziar la incha allah taala dinañ fexe ba wanale leen ak loolu ba mu leer nañ ci yéen. ba tey sax bu ngeen fi ñëwul eh, di ngeen mën a xam yenn warab yi nga xam ne eh, ñoo fi nekk am solo ma ngi noonu ñu ngi sant baax a baax kër docteur Croix-Rouge ñoom it ñu ay jàmbaar macha allah. Euh, dañuy ànd ak ñun ci liggéey bi waxtu wu nekk képp koo xam ne rek euh, dara dal na la ñu fexe ba toppatoo la macha allah moom solo. waa soxna su noo tudd. soxna Awa ñàkk si géwélu maam Jaara. ñoo ñëwoon fii teewal fi soxna Jaara si ñëw ànd ak euh, suñu mbokki ci sa saawaat di sant sëñ Tuubaa di màggal di ko darajaal loolu taxe la fi wér xol bu ak mbégte ak xel mu dal yàlla na ko teel a yàlla nga ñëw ba ñu lii mbégte mii ñu dund ngeen jëf mbokk yi ba tey damay dem ci réaction yi rek ah, Serigne Bàcca Ngok borom jooy yi ah, Serigne Bàcc ah, tey bu nu ñëwee fii nga xamante ni mooy barab yi nga xam ne nag mooy barabi ziar yi ndax Serigne bi nag barab yooyu la fi am mooy kër gi mu daan jaamoo yàlla doon daara doon kër waaye ak teen bi mu daan <coughs> roote di ci waajal ak jàkka ji nga xam ne fa la daan jullee sëñ Bàcc ñu gis ni waxtu wu nekk da ngay feeñal sa mbégte man mbég ngay yëg boo yëgee liggéey bi nga xamante ni yàlla dogal na ku wax sëñ Basiru lu Amar wax la waaye ban yëg-yëg nga am ba léeg-léeg sax faw nga tàggook sa sago. waaw jërëjëf sañ Koso xam naa yëg-yëg bi ñuy am moom yëg-yëg bi ñuy am bay tàggaloog suñu suñu suñu sago loolu moom mënuñ ko sax expliquer ndax yëg-yëg la boo xamante ne nii yëg-yëgu xol la loolu nag bokk na ci sabab yi mooy dañoo bëgg liggéey sarsaara bi te yàlla ak yonent bi ak jëmmi sëñ Tuubaa rek tax. waaye sëñ Bassirou Amar mi nga xamante ne moo ci suñu jëwriñ tamit tàggat ñu ci ba ñu bëgg ci ñu am ci moom cofeel ak yéene joo xamante ne nii suñ gisee mbooloo mi ak engagement bi ñuy doxee ci ginnaawam rek dootuñ mën a maîtriser suñu bopp. kon loolu mën naa wax ne ñaari aspect la ci man benn aspect bi mooy yëg sëñ Touba. ngir ngir nekk gi mu nekkoon fii te suñu jëmm yi rek moo tax mu nekkoon fii suñu xoolee ñun bi ñu ñëwee li ñuy jànkonteel lu mu tuuti tuuti ni koy yëgee buñ ci buñu buñ ko misaalee ak jamono yi fi sëñ Touba di nekk nan mettee woon ci moom loolu benn yëg-yëg la beneen bi ci tege liggéey Sarsara bi nga xamante ne dañ cee engagé wu jox ko suñu nafsi ànd ko suñu jëwriñ sëñ Basiru ñu gis mu ko jaral waaye gis mbooloo mi nekk ci ginnaaw tamit lim leen jaral suñ gisee mbooloo mi engagement bi ñu am ak détermination bi rek dootuñ mën a téye kon loolu lenn la leneen li nag mooy barab bii nga xamante ne nii moom la ñu nekk tey muy teen bi nga xam ne moom la sëñ Touba daan jëfandikoo te tudd ko ci xasidaam ga muy lillahi kulli la daa abaari makramatin min xar taxal naa ba fii haa ma man saara bokk na ci sayaan yooyu sëñ Touba tuddoon teen bii nga xamante ne nii ci ndigalu Serigne Saliou lañ ko gasee ba teen bi di génnee ndox kon barabu ziar la boo xamante ne barab bu am solo la kon ñi ngi ci ñi ngi ciy fasaaleel ñëpp bépp jullit ak foo mën a nekk ñi ngi ñaan ci barke barab bii suñu borom defal la njéggaluk saahir ak goog baatin mooy àdduna ak àllaaxira waaye defal la tamit fajuk aajo saahir ak baatin barke borom Touba. ok jërë ngeen jëf mbokk yi noonu ma leen ko waxee rek macha allah mu am solo. Euh, ñoom ñëpp rek kenn ku nekk ni ma ko waxee yaa ngi wane mbégte mi nga xam ne am nga ko euh, mu am solo lool waaye yëg-yëg bi nga xam ne am nga ko euh, ci sa diggante ak sëriñ bi mu am solo lool ko mbokk yi xam naa ne incha allahu taala du ñàkk ni ma leen ko waxee léeg-léeg ñu jël yenn réaction yi ndax ñoom bokk ci bis bi war a wane li nga xamante ni mooy seen mbégte ci bis bu tedd bi nga xam ni mooy màggalub Sarsara te ren jii nag ñu ko Cheikh Mamadou Lamine Bara mi nga xam ni bi mu ñëwee rek daa daal di indaale ngërëm waaye indaale ngërëmul eh, képp koo xam ne nekkan na ci eh, di liggéeyal Serigne Touba eh, kon incha allahu taala noonu rek lañ koy fas yéene amale tuuti ci kanam da ñàkk ñu xamale leen wala ñu wanal leen ak ñeneen incha allah. jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey maa ngi ci teen bi rek daje naa fekk sunu trésorier muy soxna Seynabou Niang soxna Seynabou mu mel ni xam naa ne diggante bële moom bokkul ak bii waaye ana man mbégte nga yëg boo àndee ak mbooloo mi ngeen di tawaaf beeg si fii nga xam ne nag macha allah mooy teen bi Serigne Touba doon roote eh, daan ci eh, waajal waxtu sunu borom yi ana man mbégte ngay yëg. bisimilah mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim naa bu ñu sante yàlla julli ci yonantam bi sant Cheikhul Khadim sëñ Koso mbégte mi mu yëg tey maag yàlla rek ko xam ndax lii firndeel na ni wax dëgg yàlla suñu jàmbaar ji amul morom ndax fii ñu ñëw ba tey tubaat fa kàlla ba mu fii ñëw tubaat fa kàlla lii yëpp amu fi woon. te suñu jàmbaar yi ñëwoon ba gis fi ay teen nekk fekk ay teen ñun yàlla baaxee ñu ba ñu ñëw fi te fii du ku neex rek mu dem yàlla moo koy tudd woote nga ñëw fii sëñ Koso dañoo bég suñu xol sedd na ñu ñaan yàlla di fi ñëw di fi ñëwaat tubaat fa kaal te kenn bañ a manqué nii santaan nag sëñ Touba bu baax a baax a baax te yal nañu yàlla defi taalibe yoon wii ñu nekk yàlla buñ ko wàcc mukk mukk mukk lépp luñ ci def rek yàlla nañ ko gën a yokk te yàlla bu buñ ci gis suñu bopp ci kattanu yàlla yonante ba jëm sëñ Touba suñu xol sedd na guy ñu leen di ñaanal yéen itam rek tubaat fa kaal da ca kaw ci kanam rek sëñ Koso. Euh, soxna Fama ban yéeg-yéeg ngay am boo ñëwee fii Sarsara ange bilaay min seytaani rajim naa ba ma sante yàlla julli si yonent bi sant Serigne Touba mu naan jërëjëf Ahmadou Bamba yaakaari jaam yi jërëjëf Serigne Touba loolu rek laa si wax law sanaay waarid waani bila saqatin مسغاد لي من بني ديمانا سارا لله قل للادا أبار مغرمات من أرتار نوافي هجام من سارا إن الذي نايلا سرزار خار خساد سيارة الفراخ دارين أوسارا jërëjëf sëñ Malick xam naa bala ngaa dem rek comme da ngaa bokk ci ñi nga xam ne ñoo jànkati daayira bi ah, sëñ Malick boo ñëwee fi Sarsara ana ban yëg-yëg ngay am. alhamdulilah jërëjëf ah, maanaam fii ba fi ñëwee sama ñëw gu njëkk keroog bi ma ñëwee ñu tegal ma bool boo xam ne ay xéewal ci nekk ay ganaar ba mu fees barke sëñ Tuubaa xasaay damaa jooy ndax ma xalaat ni sunu jàmbaar sunu yaakaar ji nga xam ni moo gore lool Seexul Xadiim te jëmm ji rëyul ba mu fiy ñëw daa dox amaana fekk fi lu muy xéwloo wala fekk fi waruwaay wala koo xam ne dina man di ko jàppal ma satala gi di dox di dox ba man ma ñëw fii war daamar ju neex wàcc ñu jox ma ay xéewal jox ma ay boisson ñu di ko santaat sëñ Touba mbégte moom rey lool man nag li ma ci jàngate mooy man sëñ Touba li ma defal lépp lépp waaye man lan laa defal sëñ Touba ne man loolu mooy sama jafe-jafe ci lan laa defal sëñ moo tax euh, sëñ Sey boo ñu laajee sëñ Koso euh, dinañ ci lott lool fi ne daal liñ war a xalaat. mooy ñun nan lañ def ak sëriñ bi luñ defal sëñ Touba ndax sëñ Touba moon defal lépp waaye ñun luñ ko defal Ah, jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ko noonu kon mbokk yi ña nga noonu ngeen leen di séen ah, ñu fas yéene jëm nag fële nga xam ni ah, fa la Serigne Touba amee wan wirdul maxuus bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon mi ngi noonu moom lañ fa yéene dëgmal rek daal di dem nag incha allahu taala warale leen ak mbokk yi fay ziar waaye xamal leen barab bu tedd boobu incha allah. waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi ni ma leen ko waxee woon léegi rek gis ngeen ko. noo fii eh, di barab boo xam ne barab bu am solo la mbokk yi xam ngeen léegi wax naa ne ni leen Serigne Touba amoon na fi ay barab yu wuute foofee mu daan wax ni ci biir way wi eh, abana bukkuramatan min xaar xal naa wa fiiha jamaman saara mooy teen yooyee fa la doon wute ji ndox mbokk yi nga xam ne booba ay siyaan la gis ngeen si siyaan siyaan yi ni mu nekk woon noonu ci wet gi waaye barab bii nag mbokk yi daa doonoon barab boo xam ne dafa daan xalwa maanaam dafa daan wéetal yàlla muy barab boo xam ne xam ngeen ne sore woon na ak këram ga kër ga ma nga ca nii ci sunu càmmoñ waaye su ma saa dem jàppi fee nag ba noppi day dem ca jàkk ja dem jaamu yàlla kon mbokk yi loolu de war na noo mën a jural ñun julit ñëpp ndax sëñ Tuubaa moom julit ñi la doon wax ndax damay wax ni ca départu liggéey ba mooy ba mu jógee waree jóge daarul mannaan te cedda ya war faa ñëw xam ngeen ne xasida googu mu woyan muy rab bi ba demee ci yaa maalikal mulki yaa man jàllaan xawadin irham jami al wara la jëfandikoo maanaam na nga yërëm mbindeef yëpp yaa haadiyan radaa foo gis sëñ tubaa was fi jami al muslimina firtiqaa maanaam waxtu wu nekk jullit ñi lay wax moom jullit ñi ñoo ko yitteel waaye mbokk yi fii nag muy barab boo xamante ni Serigne tubaa fi la joote werdul maqus wax naa leen ko léegi muy barab bu yéeme nag muy barab bu yéeme nag fii ab désert la fii te suuf seet gis ngeen ko suuf su jëkk sa boo ko xoolee day ñuul kukk suuf su xong la waaye suuf sii nga xam ne fi la borom Touba Xaadim Rasul jote werdul maqus bokkul ak seen suuf loo gën a gas muy gën a weex day dem sax ba di tooy loolu nag li muy wane mooy xaritam ba soppeem ba kam daan liggéeyal moo ko gis yàqasatal nga xam ne doonul kuy nelaw mu jox ko wérdul maquus muy wérdu woo xam ne maanaam dàmbe na maasale na dajale na mboolem yiw yi ci mboolem xeeti wérdu yi fii la ko jotee euh, yàlla dogal barab bii na gis nga ko bokk barab barabi ziyaar yi waxtu wi bu jotee ci bisub sarsaara bi mbooloo mi dañuy jóge fenn fu nekk ñëw di amal seen ziar man mbokk yi dafay wax lii daw na aw yaram lii bu fekkee seetaan nga miin nga barabi màkka yi dangay gis ni mbooloo mi nii rek la ñuy def. àndandoo sol lu weex waaye ñoom ñëpp am jënn yitte mooy fii fii tey yaakaar naa ku fi ñëw xàmmee woo ku am alal xàmmee woo ku néew alal xàmmee woo géer xàmmee woo géwal ki nga xàmmee daal mooy ab jullit boo xam ne dafa melokaan benn melokaan bu weex waaye ñu bokk luñ bëgg mooy ngërëmul Serigne Touba. sëriñ bi nag moom day waayam ja moom day xaritam ba moom de wëllëreem ba moom de kam doon liggéeyal demal na ba di ko wax ni ko laa yam na annaka bu'dun min siyaaratihi innal muhibba liman yahwaahu sawaaru daal ne ko li ngay sori sori sori sori yow rasulullahi du teema di la siyaare si ndax man dama laa bëgg ci sama xol te nit boo ko bëggee waxtu wu ne nga di ko siyaare xam ngeen ne am na genn góor yàlla dafa wax ni atufu bi baytillaahi war naa su nu wamu waxtu wu ne bëgg ma bëgg rasulullaahi dem na ba may ma guddi gu nekk damay wër kaaba ga te fekk nit ñi booba ñu seeni lal di nelaw waaye gis ngeen ni sëriñ Touba ci boppam moo waxan dëkk bii ni inna alladina ilaa sarsaara xat xasadu loolu mbokk yi ab sart la xat xasadu baatub xas da ci arab mooy foo xam ne nit ñi dañ fay dem ak dafa dem dafa demaat kon am na dafa mel ni xeetu baat boo xam ne bu ko Serigne Touba utilisé woon day mel ne mag ñuy fekken sëñ tubaab fii rek gànnaar ñooy ñoo ñoom ñooy moom ñaan googu waaye xat-xasadu képp koo xam ne am nga objectif yu jëm si fii nga xam ne mooy Sarsara ngir siyaarati lam ca teg mooy siyaarati xu daaray ni aw saara maanaam ci soo xësee siyaaree Sarsara tàggoo nga ak bàkkaar muy am solo loo xam ne mbokk yi mat naa bàyyi xel bu baax mat naa sonne waaye mat naa waxtu wu nekk ñu di ko bàyyi xel di xam ne sëriñ bi Sëblaan Mbàkke dafa waxal ni asgor moo koo xam ni soo ko lebalee taraanga danaan tara danaan kii kat asgor la su ma lebal taraanga yàlla naa fekk bisam ba def ca lu ma man ak lu ma mënul mbokk yi damay wax ni barab bii tey Sëriñ Tuubaa bam mu fi ñu yàgg léegi téeméeri téeméeri at la ndax 1903 la fi ñëwoon ba 2024 kon ay at yu bari la kon mën na noo laajante sunu biir ni Sëriñ Tuubaa ku ko doon toggal Serigne Touba ku ko doon rootal Serigne tubaa ku ko doon jàppale waaye bu nu wëlbatiku rek danañ xam ni moo waxal ni man day xaadim rasul maay koo xam ni yàlla dimbali na ma ba lépp lu ma bëgg sunu borom may na ma ko fii si gànnaar gii dafa waxal ni aatay dani jamia duuna salabi wala taquna su'la waqta talabi te mbok yi xasida googu di wakaan xaqan fii la ko Serigne tubaa binde nee na lépp loo xam ne sunu borom digal na ko lépp loo xam ne suñu borom waxal na ko waxal na ko moom ci pay ci bi yool suñu borom jox na ko lu mu ko waxee ci wakkaanaa xan ajran kabiran wa sawaban wal jasa wal waxdu lii fii ramadana najasa ajuru la si maa indahu laa yeen fadu wasala li ma ataraahu nafadu waaye fii ci gànnaar la waxan ne yaquudu lii kun fa yakunu xaaji min ka bila aqdin wala ko xaaji fii ci Sarsara ci barab yu tedd yi fi la Sëriñ Tuubaa binde woon xasida yu bëree baree bari yoo xam ni mandargaal na ko lu bëree bari ci ay bindam kon mbokk yi buñ fi ñëwee ñu bàyyiwaat xel seexul xaddim waaye bay bàyyiwaat xel ak njàngat ndax ni ma koy waxe mooy fii tey boo fi ñëwee di nga yëg ni euh, aspect développement bi boo ko xoolee ci ki nga xam loolu la jàng dina xam ni xoolal li fi ñëw ci ay ay pick-up lu gàtt gàtt téeméeri pick-up moom ñëw na fi te kenn ku ne dañ koy fay cent vingt cinq mille loolu ñaata la ci xaalis. ñaata doomu aadama ñoo fi ñëw lu gàtt gàtt koo fi gis lu gàtt gàtt jaay na fi ñetti junni wala ñeenti junni yóbbaale ko ab sëriñ ca waa këram kon loolu mooy wane ne Serigne Touba mooy gën nan laayeen fadu mooy ki nga xam ne daa am daa riis te dootul jeexal mukk kon yàlla na ko suñu borom subhaanahu wa taala fayal mbokk yi may fàttali ni bii mooy vingtième édition waaye ñu tudde ko nag jëmm ji nga xam ni doomi sëriñ Touba la at yi bëriwut waaye mooy doomi Serigne Touba ji nga xam ni bi mu ganee jamono rek Serigne Touba dafa wax mag ñi nekkaan ci kippaaram ni leen borom tur wi muy Mouhamadou Lamine baara ëndaale na seen ngërëm kon mooy koo xam ni am na ngërëm am na ngërëm am na ngërëm joxe na ay ngërëm ci waxtu wu teel a teel kon mbokk yi ma bàyyi loo leen xel su ko defee ngeen seetaan seen télévision As-Samadiyya ak alxadime ci réaction yu am solo yi waaye mu bàyyi leen ngeen seetaan nit ñi ñi nga xam ne noonu la ñu amalee seen i armal ak seen i ziar incha allahu taala ba ci kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziara di am mbégte bu baax bu ngeen xoolee sama ginnaaw eh, di ngeen seen mbooloo moom mu sol lu weex toog noo ci wetu barab bi nga xam ni fi la Serigne Touba jote woon wérdul maquus bi waasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy barab bu am taarix ci yoonu murit waaye di barab boo xam ni barab bu am mandarga la fii ci Sarsara mbokk yi barab boobu barab bu ràññeeku la mboolem suuf yi ko wër yépp dañoo ñuul waaye moom suuf su weex tàll la loolu sax dinaa leen wanale ak suuf soosu ak barab boobu incha allahu taala eh, kii nekk sama wet nag mooy soxna Bintu sekk soxna Bintu sekk day jàngale alquran dib soxna góor góorgóorlu lool sunu borom defal ko tawféex ba fu bari ci liggéeyal Serigne Touba yi mu fay teg tànkam su ngeen muy nee samay jataay xam ngeen ni euh, fekkan nañ ko xel koom ànd ak moom mu def fa liggéey bu am solo waaye joxe woon fa kàddu yi am solo moo tax tey ñu talaat ko seenu micro euh, jox ko mu nuyoo su nuyoo ba pare ñu door a continuer moom waxtaanee soxna Bintu ma bàyyi la nga nuyoo. ban ban télé la. jëlul wax asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare waa Samadiyya TV ak waa waa alxadimiya maa ngi leen di ziyaare bu baax di ñaan yàlla gën leen di jëmale si kanam si liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey di am mbégte kontaante bu baax nag si teew gi ñu teew fii si dëkk bu tedd bii di Sarsara maa ngi siyaare sëñ ko sa sama jëwrin di siyaare ki mu àndal liggéey bi dem ba léegi fan yëpp ngeen nekk si liggéey bi yàlla na yàlla na ngeen si dajeeg tawfeexu sëriñ Touba. dem ah, mbégte bu baax sëriñ Touba de yëg bi may am mooy di bañ déparé ba dem ndar man de bi ma ñëwee ba ndar rek su ma fi yemoon man neex na ndax ba ma demee si néeg bi nga xam fi lañ tegoon sëriñ Touba yëg sa kaw bureau ba nga xam fa la doon si signé kàddu baatu yàlla ba ba nga xamante ni kenn si ñëw ko ba ñëpp lànkee kenn nanguwut a ne kenn ñemewut a signé Serigne Touba taxaw raxas taabal ji raxas lu taabal ji ba mu set mu jël bind turu yàlla bi gën a tedd muy xul huwallaahu ahad julli ñaar rakka ma dem foofu ba ma fa teewee rek sama xol dafa feesoon dama xol dafa seddoon guy bëggatuma dara si àddina bëggatuma lekk bëggatuma naan ndax am xol bu sedd maanaam Serigne Touba daal mu doon ko yéeme ba ma demee ndar man ba may départaatee nag ba ñëwaat ba Rosa euh, Sénégal ñëwaat ba Rosso Mauritanie man daal li ma ne si yoon bi yëpp damay jàngat lu bari daal jàngat naa ko si. Euh, soxna Bintu barab bii la indi Sëñ Tuubaa mu am fi ñeenti at mu am taarix yu am solo yoo xam ne am na fi nan nga gisee tey jii ni mu mettee ak na mu tare tubaab yi indi woon gi indi woon fii sëriñ bi loolu boo ñëwee yan jeexital lay am ci yow en tant que taalibe Sëñ man de bi ma déparaatee Nouakchott bi ma départ bi ma départ Rosso euh, Mourtani ba jëm si Nouakchott diggante boobu rek guddaay bi ma gudd daf ma yéem man nag démb bi ma laay li ma gën a yéem nag mooy démb bi nga xamante ni départ na joge murtani jëm si Sarsara diggante bi gudd na gudd boo xam nekk àll boo xam bu yéeme la waaye damaa dem ba mu yéem ma ba nar maa dof ma mujj xalaat ne nañ dellu si yàlla Serigne Touba. daa bokk si ñi yàlla waxoon ni wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna mooy Serigne Touba Serigne Touba damaa gëm ni ñun buñ nekkee bëgg koo xam rek tey dañuy sonn te danañ mujj suñuy xe danañ dof de buñ bëggee xalaat Serigne Touba ndaxte xam nga lan la ñuy def bay boo ñuy dellu suñu borom dem sa wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna ay Serigne Touba Serigne Touba ñun mbokki taalibe yi bala ñu koo xam yowmal mun mënuñu koo xam tey man démb dama koy oto bi ma si yoon bi àll bi damaa toog si ginnaaw oto bi nda di xool dëkk bi ma xam ni Serigne Touba mënuñoo xam kan la te Serigne Touba yenente bi ñun xam nañ ko ndax yàlla dama démb damaa ne si oto ma ne yàlla bind na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bind ay jaar-jaaram yëpp ñu xam kan mooy yenente bi mu naan ñu toppee leen nii yenente bi bàyyee leen nii wax yenente bi lim ko war a lim ko doon defloo ak mooy kan waaye ñun Serigne Touba li ñu li problème ay daa daa fekk arxuraan man na fekk na arxuraan mat yàlla bindaluñu moo tax daal buñ ko bëggee xalaat nañ dellu suñu borom ba yomal xiyaam la ñuy xam kan mooy Serigne ndax lii moom du nit moo doon nekk fii di toog àll bii nit toogu fi ndax man de yoon bi dong man maa ngi ni sonn bu bëgg a dee waaye lépp Serigne Touba lu ma si jànkonteel man man oo ma si métti ndax dangay ngay xalaat Serigne Touba rek si lañ tegoon Serigne Touba mu doon doomu aadama boo xamante ni ku ku dara jaba rëyul noonu ñu teg ko fii ñaari at ñeenti at kon loolu yéeme na képp ku fi teew santal yàlla suñu borom bi ndax lii may suñu borom la ndax Serigne Touba comme que dañuy inna lazina illa sarsara xat xasadoo siyaarati faaraxu daare ni aw saara kon boo waxee loolu ñun yàlla teewale ñu fi nañu sant yàlla suñu borom bi julli si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dara dàqu rek xam kan mooy Serigne Touba wax waxuntuma la di ko liggéeyal waaye dara dàqu sa xol rek di yëg bëgg Serigne Touba Serigne Touba bëgg koy bëgg même boo ko gëm boo ko si tarixam sax Serigne Touba du pour kenn pour doomu aadama yëpp la pour ñëpp la. nañ àndandoo ñun ñëpp képp kuy julli di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bëgg naa nga jël sa def si Serigne Touba ba mu fees nañ bëgg Serigne Touba nañ gëm Serigne Touba nañ xam ne Serigne Touba mooy wa yaxluqu maa laa ta'lamuun la mun ay Serigne Touba. buñ fi masaana ñëw loolu dana doon sunu ñaan waaye loolu dana doon sunu niseer waaye daayira bi nga xam ne mooy muxaddamatul xidma nekk ci biir. وشكري لمن كل به سارب لغور دون سو تنحند سرسارا حمدي وسكري لمن كل به سارا لغور دون سو تنحند سرسارا